donc dañuy dem fële nga xam ne rek moom moo di régie daal di jëlee euh, sunu tampon fajum cosaan sànjoogu meng daal di ki nga xam ne rek moom di Bara borom def gis. jërëjëf Top ah donc ça. ñu ngi lay gërëm. ah di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu. jërëjëf El Hadj ci rubrique bu mag bi nga xam ni moom la ñuy wax pajum cosaan. Mm-hmm. ñu ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis. ñuy waxtaanee moom ci lu jëm ci wàllu actualité nga xam ni Sénégal ñu ca bari dañ naan tekk di ko déglu ginnaaw bi mbir yi xewee ñu leen ñëw ngir leeral leen waaye itam nit ñi di ko déglu ci wàllum pajum cosaan. Mm-hmm. mu ci ñëw di ci joxe ay xalaat ak i gis-gis ci li nga xam ni mooy pajum cosaan loolu yëpp nag ñu dëxëñ ko ci rubrique bi nga xam ni moom lañ tuddee pajum cosaan Cheikh baara njaay borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. Ah, sa billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala eh, fala taxlamu nafsun ma uxfi jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay fay laaji saa njoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ñëpp di nuyu mbooleem ñu ñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm <coughs> di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di nuyu sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Makhtar di xalifa Cheikh Mouhamadul Amin Baara di nuyu sëriñ Abdou Samad mu Cheikh Sidil Makhtar di nuyu sëriñ Xaadim Mbacke mu Cheikh Sidil Makhtar ak soxna May bintu seex Sidil Makhtar di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu alaaji Abdou Assis Guèye ak euh, maître maam Adama Guèye maa ngi leen di nuyu di nuyu soxna Ndey Ndumbe di ko wax jot naa yóbbante bi ak soxna Astu Touré di dëkk sama soppe bu dëkk Fass Touré di def anniversaire maa ngi koy nuyu bu baax di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis <coughs> balaa dara di xew eh, dañuy ñëw ak yow ci li nga xamante ni bii defe naa ni xew na ci penc mi. waaye dañu ci jiital li nga xamante ni bii moom la ñuy wax eh, Adji Sarr mi génn ginnaaw bi ay nit yëkkatee ay kàddu ab journaliste wane ni mbirum Adji Sarr mi ngi ci ay xat-xat mi ngi ci ay kii te Adji Sarr mii kat war naa def nii war naa def naa Adji Sarr génn na bi mu génnee it wax na wane ni lañuy wax dulu wér noo jàngatee yëfu Adji Sarr yi ak sorteem bi nga xamante ni eh, moom la bu jee def waaw euh, xam naa ni aji Sarr moom mbiram. Hmm. xëy na comme dañuy def actualité bu am danañ ci wax munta a ñàkk ñu wax ci mais jàpp naa ne. Hmm. du sujet bu lu ëpp solo. Hmm. am na ci penc mi loo xam ne moom laa gën a bëgg a waxee. te it pour dimbili aji. ak mm, ñi ma àndal. maanaam mooy bañ cee wax. parce que jàpp naa ne ñoom ñooñu muy aji Sarr. ak euh, ñi ko wër. képp koo ci jëloon dugg ak moom ci néeg nga laaj ko mu wax la xaqullahi taala hmm. su ko su gisoon koo génnee ci coow li mu génn ci hmm. waaw te itam daanaka boo seetloo duñ ci wax mukk lu dul nit da cee génn wax ci ñoom amuñu luñ ciy wax daanaka hmm. boobaak léegi comme nag ku daan wax ba yàgg léegi waxatoo waaye dañ lay wax loo ngay wax daanaka dimbalee la noppi ni ci des rek xanaa mooy man pour wax la benn affaire rek mooy amul lu Babacar Touré wax man loo xam ne weddi naa ko Hmm. voilà loolu daal laa ci mën a wax. amul Babacar Touré mu wax lépp. nangu nga man gëm naa ko te xam naa ne wax na dëgg. ci lu hmm. ci lu ëpp ëpp bokk. Hmm. waaw. waaw. Adji nag moom euh, yàlla na ko yàlla jàppale daal. Mm. waaw jërëjëf Cheikh balaa ñuy dugg ci li nga xam ne moom lay wax actualité dëgg-dëgg yi dañuy dafa am loo xam ne danga ko fi waxoon mu jëmoon ci mbër yu màggat yi nga ne woon bu ñu ko ci tentul bopp bi du dugg làmb ja euh, mu mel ni dañu gis ci TikTok bi ñu jël Cheikh compa Ndiaye mbër Bombardier bi yow dafa mel ni <laughs> ñu jël la kole ko ak li nga waxoon daal ne mbër yi dañoo màggat daggal la ko fi ngay waxee ci bombardier bi affaire boobu kii noo jàngatee mbir <laughs> no gis naa ko dañ ma ko yónnee waaye eh, bombardier nag eh, xam naa ne daal eh. daa mel ne seen làmb làmb jooju mu demoon moom làmb ji ko gën a yomb ndax ji moom buñ ne laa yaa la neexee gaaw kaat ab <laughs> waaye bee moom oh. daa mel dañ naan tell ba nga nelaw ñu doo ko bàyyi <laughs> xam naa moom bu mënut a ñàkk demit buy demaat na ko waaj ah. d'accord jërëjëf Cheikh Bara macha allah euh, léegi nag ñu dugg ci li nga xamante ni bii moom la ñuy wax actualité bi euh, ñu ñëw ci Bougane Gueye Dany des médias gis nga la nga xamante ni bii xew na fa ginnaaw bu huissier ñëwee gendarmerie taxaw ñu daal dee taxaw filmer la nga xam ni moom la ñuy wax matériel yi daal dee wane yëf yéen na nga xamante ni noonu la demee bésub keroog ñoom ñu def ko en direct daal di wane ni daal ah des médias fi mu toll nii am na problème. léegi nag ñu jox leen diirab fanweeri fan yoo xam ni bu ñu fayut daal boo yeboo nga xam ni dañ naan léeboon luppoon amoon na ab rajo bu fi amoon bu ak tele bu fi mësoon a ne ca jamono sàngam waaye daal wax dëgg fa yàlla bal ba tàkk na télé boobu ak rajo boobu amatul noo jàngatee li nga xamante ni bii mooy li xew ak bugaan li nga xam ni moom lañ koy teg ci jamono ji waaw euh, comme ni nga ko waxee maanaam euh, état ñëw na andi na ay équipe bu centre gendarmerie bu ànd ak ay UG ñu ñëw mel ne ku yor boutique bu ñuy inventaire euh, loolu nag maanaam awa dafa ñaaw ci image mm. te it na xam ne mm-hmm. maanaam démocratie waaw laal ay tasukaayu xibaar dafa bokk ci source yi àdduna di gën a xool ci ne kii dictature la wala fii amul liberté d'expression parce que nit ñi pour ñu am seen liberté wax waaw duñ ko waxee seen i nekk ci waxukaay lañ koy wax <laughs> kon booy gàllankoor waxukaay yi rek dañ mel ne làmmiñu nit ñi nga bëgg a gàllankoor mm-hmm. loolu na ko bàyyi xel li ci des mooy euh, na ma ko waxee woon mm-hmm. maanaam Bougane mënta nekk ci réew mi depuis 2003 ba léegi di liggéey di ami société mm-hmm. bàyyi ba vingt et muy doog a toog di bañ a fay ay ay ko ay ay ay ay. impôt mm. loolu xel nanguwu ko. tasukaay xibaar yi nekk ci réew mi yëpp. waaw mënuñoo di fay impôt Bougane képp mi opposant moom moo ci fayut impôt ñeneen ñëpp fay nañ ba mu mat. Mm. loolu xel nanguwu ko Bougane ñàkkul jom ñàkkul fayda. Mm. lay moroomam def ba toog yor seenub télé. waaw mën na koo def te def na ko gëm naa ko. benn problème la la am mooy jubluwul Macky Sall Macky Sall jubluwu comme nag ñun réew mi amul ay droit mm-hmm. ak i mm-hmm. loolu moom rek mooy problème bi léegi nag wax ne du fay impôt non loola affaire maire la woon mm-hmm. te ñoom ñaar bugaan doon na indi ay argument seetaan naa débat bi ba mu yegg mais nekkul ne nit ki da ngay yor sab tele ci réew mi nekk ab opposant rek léegi kenn du la jéggal dara kenn du la may dara dañ lay bunduxataal ba tëj la kooku dama am lu may wax mooy bu la fanweeri fii fanweeri fan bu fekkee Macky Sall ñëw na tëj des médias nañu xam ne Sénégal amul dara ci démocratie. Hmm. te loolu nag mën naa jur leneen ak leneen luñ foogul. lu mel nan mooy maanaam euh, la fait que rek Sénégal Macky Sall bi mu fiy ñëw dafay fekk Abdoulaye Wade bi mu fiy ñëw dafay fekk RTS. fexe na ba yokk tele yi ba ci Walfadjri gii. Hmm. Macky Sall defe naa ne lu mu ñu yokkal ci suñu développement la waroon a xoolaay wërta xool lu mu ciy wàññi. Hmm. dégg nga loolu rek benn la. te et puis fii Macky Sall toll. ak nguuram gi nii mu wayafe di dugg ci tëj ay tëj tasukaayu xabaar mën naa ñàkk mais nag am na ci lu ma ci seetlu mooy dafa mel ni télévision yi ak journaliste yi nañ ca waroon a duggee wuñ ko ci te jamono yi Ablaye Wade pourtant boo laalee benn télé ñëpp jëf. Hmm. mais dafa mel ni bi ma gisee ay ay patron de presse di dem di wuti ndombal tànk ministre ay patron de presse di wut ay ndombay tànk ñii di di ñii di këpp këppal ay ay ay ay mel ne léegi ci la presse bi néewee doole ba ku ci neex jàpp di duma te dara la ci fekk. Hmm. te gis nga dañuy wax ni picc mi ci taal picc mi ci loxoy gone yi. waaw wërta ree picc mi ci taal bi. Hmm, te taal ba la picc mi picc mi gone yi jàpp ba téye ci loxo bi. suy ree picc mi ci taal bi rek dafa xamut. picc su fekkente ne mag Sall am na odaasu am na may ngeen ko odaasu mu waaxu ba ci télé yii <laughs> tëcc bi ko neex <laughs> na ngeen xam ne benn télé nekkatul ci sécurité. parce que hmm. suba suba suba. Hmm. xaw ma lu leen liyee mais mën naa dagg mu dagg mu tëj sa télé te dara du ko ci fekk ndax eh, eh, niñ naan eh, mos ah, mosaat. jafewut mos a jafe a jafe waaw kon nag loolu na ko bàyyi xel te presse bépp dañ cee war a jóg bi ci desit mooy man maa ngi ñaan kilifa diine yi gis naa hmm. sax waa njabootam gi nekk Mbàkke dem seeti sëñ Muntaxa mais man maa ngi ñaan sëñ Muntaxa hmm. mu dugal ci loxoom parce que lii du lu woyof hmm. parce que bol dee média lu mu dee dee ay borom kër yu dul jeex ñoo fay liggéey bu dul dee am na ñoo xam ne bu lu mu dee dee am na ñoo xam ne ñi ngi jàng seen diine am na ñoo xam ne ñi ngi jariñu ci seen parce que dee dul bugaan sax di télé bi na ci sëñ Muntaxa wax di ñaan suñ man lool lii moom maa ko wax sama mbokki murit yi. nan jàppale Bougane. ah parce que Bougane ab murit la. Eh. te itam suñuy effectivement mosu cee seetaan benn yoon. waaw njabootu sëñ Mbàkke soxna Lo. Bougane lu nu lu mu lu ma mës a gis ñu koy def ba ci luñ mës a def rek gis naa ko ci mu nekk ci. Hmm. nit nag bu lay bu lay bu lay defal maanaam buy ànd ak yow bu demee ba ba bànneex ñëw lu yonante bi wax mooy nga ñëw taxaw ko bu bu naqar ñëwet dalaa war a gis. Hmm. dégg nga mboolem mboolem laa ensemble de Mouride. man gënoon na maa xaar ñu ñu ñu apporter Bougane soutien bu ëpp bii ñu ko defal. Mhm. parce que tamit sonn na. tey liggéey sab tele ba mu toll fii. Mhm. ay nit ñëw ci waxi naxa sa xandak ñu bëgg koo tëj. nga am ay bokk am ay àndandoo ci réew mi ñu taxaw di la seetaan man loolu rafetluwu ma ko. Mhm. man bu ma sañoon su ma mbokki taalibe yi. ñu ñu ñu ñu solidarité ak Bougane loolu man man maa ko wax man en tant que nag dama ko wax ci làmmiñu Mouride. taalibe nga ko wax des mooy ban Bougane gisoon naa ko. waaw dafa meloon na cantaakun man dama daan wax naan bugaan xanaa cantaakun la di ko nëbb. waaw ah. Cheikh Béthio dem na ba ñëw D-Media seet si ko. Mhm. lu Cheikh Béthio mas a xewle bugaan moo ciy ah, jiitu. booba ak léegi gisuma maa ngi soxna Ayda wala ku mel ne sëñ Saliou Thioune dafa mel ne man ah bu dee def nañ ci benn soutien yëguma ko wala ci suuf lañ ko def. Mhm. mais yu mel nii dafay tax nit ñi ba ëllëgee da maanaam day mel ne am ay ay ay ay ay ay ay mbokk. amul lu muy jariñ daal voilà nit bu lay laal war naa yëg ne yow mi maanaam yàgg gaa def lu baax ci dëkk bi mhm. dëgg yàlla bu dul bu dul bugaan sax nag. Hmm. maanaam injustice dafa war a jara xeex ba dee. dañ koo seetaan voilà voilà. d' accord jërëjëf Cheikh Bara nee na bugaan dañ koo seetaan kon gars yi war nañoo jéem a yëngu-yëngal daa ba dax mbir yi ngir jàppale ka nga xam ni moom la ñuy wax bugaan gay dani jàppale aussi waa Sen TV di wax ne télé boobu bu ko kenn tëj parce que ay kilifa ñoo fa nekk di liggéey. Mm-hmm. te ñoo fay liggéey yaakaar ñu luñ seen jabar Cheikh Bara dañuy ñëw ak yow ci kan ña nga xamante ne bii nag ñoom ñoo ñooy ñooy waa ba. pale ba Mahmoud sale dafa xëy rek di ratatate waaye ginnaaw bi mu waxee ba pare it yaa xam daa dee ñëw dal ci kawam ne yi xew nii Macky Sall yëgu ko Mahmoud sale ñoom dañuy ñëw rek di ratatate di wax noo jàngatee la nga xamante ni bii moo xew ci pale ba ci jamono ji nga xam ni moom lañ toll nii nga xam ni dañuy jékki-jékki benn waaye ne lay daal di tëb wax wax joo xam ne mën naa euh, tojum réew te keneen daal di nekk ca ga daal di ne président Macky Sall nii ak naan noo jàngate biir waaw li njëkk mooy Mahmoud Saleh waxam dama koy ñaawlu. parce que dafa bëgg dafa bëgg a taal réew mi. Hmm? bi ci des mooy euh, yaa xam mbay. Hmm. dafa am moom ci communication la nekk. dafa am hmm. stratégie rek. parce que li ñuy def lépp ñoo ko ñoo ko ñoo ko déggoo. waaw yaa xam xam na ne. maanaam sa kër buy tàkk. boo gaawul fay ko day am ñu ñëw fayal la ko. pour inviter nit ñi wax ci moo tax mu daw njëkkante di dal ci kaw Mahmoud Saleh ba pare tamit ci biir wax gi yëpp bëgg a rocc Macky Sall teg fële la ci jublu d'accord bëgg a voilà lu tax gis nga yaa xam ci boppam moo war a bàyyi bu ne ah. pip mu génn naan président yëgu ko président bu demee ba Mahmoud sale mii ah. di directeur cabinet am di loxo ndey mën a ah. dem ci télé di jël ay engagement bay wax lu mën a taalum réew te Macky Sall yëgu ko da koo war a hmm? nañ bàyyi Tanor ca dëj ba ñu ne président yéegu ko woon. naan danañ fay ordonnance yi. waaw dañ ba resisé. feebar na fi ba faatu ñu ne président yéegu ko woon. Mm-hmm. affaire aji saar bi quatorze personnes dee na ci lañ wax mooy noo président yéegu ci woon dara. affaire cité Tabago mën naa koo wax ba muy téeméer yoo xam ne maanaam moom lañ doon doyee Macky Sall. waaw président ñu ne moom yëgu ci dara. yëgu ko waaw léegi moom moom lan lan lay lan lay yëg kon lan lay def ba yëgu dara. Mm-hmm. wala lion door gam doon wax gaynde guy nelaw gi mu doon wax. da da caa nekk. xam naa day nelaw voilà léegi ma maanaam moom ay président yëgu ko loolu moom moom la ñu waxut mm-hmm. gis nga euh, kii mi euh, Mahmoud Saleh mi maanaam résultat am rek la jox Macky Sall mm. mooy Macky Sall tànn ko ci xam <coughs> tànn ko ci compétence mm. tànn ko ci jub mm-hmm. tànn ko ci dëggu mm. la tax mu tànn ko xawuma ko mais wóor na ma ni lii mu ñu wax nii loolu la ko Macky Sall doon tànnee parce que tey directeur cabinet moo dul caaxaan da ngay nekk euh, diplômé IRC IRC A mooy IRC ah moom ngay nekk mm. niveau un moom ngay nekk pour mën a nekk directeur cabinet président mm-hmm. soo xoolee ñi ko fi mas a nekk ku mel ne Abdou Assis Tall nga xam ne management la mm-hmm. nekk gradé bu mm-hmm. mag jànge ci école yi gën a mag ci àdduna ku mel na tey ay ñoom euh, Augustin Tine ah, ku mel ne ay Makhtar Cissé hmm? ñooñu ñoo ko fiy nekk ak ku mel ne yum nga xam ne avocat euh, avocat la mm-hmm. yooyu ñoo doon nekk directeur cabinet Ablaye Wade ah. Ablaye Wade bi mu fi jëlee Babacar gay waaw fal ko oh. ne da koy def directeur cabinet bi journal bindee ne moom amul amul amul amul ERC a bee la dañ ko dàq mm. ca suba sa Ablaye Wade daf ko daf ko sappi parce que loolu méngoowul ak ak ak ak directeur cabinet léegi nag nga dàq ñi nga xam ne ay gradé haut niveau lañ jël koo xam ne nii yow mënoo maanaam amul xam-xam bi benn te mbooleem critères yi tax ñuy fal ci bërëb muy muy muy attitude muy aptitude muy solanité amul lenn loo xamante ne da nga ko wër fekk ko ci Mahmoud sale hmm. ba pare nga jël ko teg ko fi dàq maanaam moom daf loolu dafay dafay wayadil sax ñi ja ñi am xam-xam hmm. parce que yow mënoo jël nit mu jàngi ba ñëw ñu ne ko poste bii kii moo ko war a yor nga dem jël ko jox ko keneen jël koo xam ne jàngut tojut fenn hmm. nga jël ko teg ko fa dégg nga. léegi boo ñëwoon ci xam-xam Mahmour moom amul xam-xam bu yor loolu. amul xam-xam amu ko. Mm-hmm. léegi Mahmour Saleh gis naa démb koy jàngat naan xam na naan bopp bi daa baax. Mm-hmm. moo tax ñu teg ko foofu. Mahmour Mahmour bopp bi baaxul. ah parce que xam nga dafa am nit ñi li ñuy jaawale. gis nga waaw noo xaaral gis nga kii nu mu tuddati. yaa ngi ci bopp bi kay gis nga euh, Pape Samba Mboup. bi mu nekkee ci nguurub Ablaye Wade. Mm-hmm. nga xam ne mit la bu ñëw ci télé yi kenn du ko gis lu bëri. Mm-hmm. ñuy séen ko rek muy ànd ak Wade dañ naan Pape Samba Mboup mooy cerveau bi. <laughs> dafa bandi dafa garaaw. mais bi gis nga bi Ablaye Wade daanoo. <laughs> waaw ba Pape affaire bi dëgër mu ñëw ci télé yi nag di ko lijjantil boppam. mais da ngay yëg ne Pape bopp bi ndox dara nekku ci. bopp bi dara dew dara nekku ci. léegi mit bi mu nekkoon bopp sikkim ba fa ne. Mm-hmm. <laughs> mit bi dong dong dong maanaam moo la doon moo la doon rey ci Pape Samba. gis nga Mahmour mi du affaire xam-xam parce que moom lii mu wax nii rek du xam-xam. du xam-xam hmm. benn bu njëkk bi bi ma koy njëkk dajee dajjee mu wax mooy. Hmm. wane na ne moom Sénégal amul loi. Hmm. lu tax nga wax loolu. amul ay constitution amul dara. foo ko teg yow dane nañ dem. buñ gañee élection yi mën a laaj trois heures mandat. waaw loolu la wax kon élection yi lay gagné. élection yi moom mooy constitution bi moo koy jox troisième mandat buñ perte élection yi duñ mën a laaj troisième mandat mhm. kon perte élection mooy constitution bi lay aaye nga nga laaj troisième mandat kon amul Sénégal amul constitution loolu la a wax ah mhm. ana constitution léegi Sénégal bu amoon constitution dina taxaw naan suñ gañee élection yi mhm. dinañu mën a may ñu laaj waaw suñ ko dootuñu mën a may ñu laaj kon kay léegi calcul politique mooy joxe troisième mandat calcul politique mooy xañe troisième mandat kon kon ay loi ki ay ay constitution mhm. faale wuñ ko lijjanti wuñ ko mhm. loolu la wane ci biir waxam ji ñaareel bi nga mën a déggaat ci biir wax ji mooy mooy lan amul xam-xamu xam ne calcul bi mu def sax dafa faussé muy ban bu fekkente ne Macky Sall gagné élection municipale yi waaw ko bu baax moom mooy tax mu mën a laaj troisième mandat mhm. mais Macky Sall 2009 coalition Dekkil Ngor bi Macky Sall de ñëwee ñaata mairie la gagné benn maire yi muy maire yi Fatick ak dëkk bu ñuy wax Thiamène ca booy ak localité bu ndaw. ñaar yooyu la Macky Sall gagné ci li Sénégal di rëy rëy. Mhm. muy Fatick gi mu dëkk. pourtant 2009 mais 2012 bi mu ñëwee dafa gagné élection yi. Mhm. kon bu fekkonte ne gagné ay local mooy tax nga mën a sukkandiku ci ne damay gagné ji élection yee. Mhm. Macky Sall kon warta woon a mën a am dara ci élection yi parce que moom benn localité la gagné woon. benn gox la gagné ci Sénégal. dëgg la kon Mamour Salé. loolu mu wax noonu. du xam-xam du xam-xam. waaw dégg nga amul xam léegi nag. baax mhm. Baxmuur nag yàq na élection yi Macky Sall moom. ah ko yàqee. mooy na ma na ma jàmbal defoon ma Abdoulaye Macky Sall ñëw Touba defar hôpital mu xëy suba daan ne xanaa kon léegi di ngeen récompenser Macky Sall parce que defaroon na leen hôpital. ma jàmbal ma jàmbal. Ah, mooy ma ñëw di nopp ak jigéen nii may ko portable. mu jël portable rek ma ne ko xanaa di ma nopp ndax may naa la portable. Mhm. maanaam day yàqi wax. waaw kii bu Macky Sall jëmee ci ay élection mu ñëw def déclaré am daan ne bu ñu gañee mën a laaj troisième mandat mhm. <laughs> léegi nag ñun Sénégal xanaa ñàkk ñu fayda xar mu taxaw ne la léegi almay béjjën ma mëkk la boo nit boo amee ful la. waaw ah. mais bul ko jox béjjën yi. déedéet ñoom nee nañ buñ gañee mën a xàll yoon wuti troisième mandat. troisième mandat lan moo fa am. musiba mm-hmm. yàq démocratie Sénégal. Mm-hmm. rey suñuy doom. Mm-hmm. bloqué suñu liggéey. lakk suñuy tali lakk suñuy bagage loolu moo am arrêté ay nit yu dul jeex tardeel dëkk bi. loolu moo nekk ci troisième mandat. comme nag ci comme nag ci lo euh, gagné localu Macky Sall gii ci loolu la aju. waaw ma bu mu gagné. bu ko Sénégal yëpp taxaw xeex ko. oui ah, mais moom moo ko wax di. moo ko wax moom. su suñu gagné. waaw mën leen a indil musiba ci réew mi. parce que mhm. dañ leen indil troisième mandat. waaw mais xar kay xar kay bu jàkkaarloo na la aal ma say béjjën ma mbëkk la mais amal fu lay bañ ko aal say béjjën moo gën nga jox ko béjjën yi ba noppi di xeex naan doo ma mbëkk dëgg la léegi ñoom mm. liñ bëgg bu mu am rek bu mu am voilà jërëjëf Cheikh Bara liñ bëgg bu mu am waaye dafa mel ni tamit am na te ma jambal ma jambal tamit na xam kii nu mu tuddati yaa xam mbay na xam ne ñun xam nañ gis nga Mahmour mii <coughs> bëkk néegu Macky sàll la mm-hmm. amul lu muy bëgg ak lu muy bañ Mahmoud du bëgg du bañ mm-hmm. Mahmoud day xam lu Macky sàll bëgg waaw mu bëgg le ko xam lu Macky Sall bañ mu bañ le ko ko xam na ne Macky daa bëgg troisième mandat mu ko koy bëggalee ba fa rëccale wax ko te Macky Sall premier euh, directeur cabinet am ak euh, chef de cabinet mhm. kii ma nga naan horizon deux mille trente cinq ma muy Mambay ñaa mhm. kii ñëw taxaw naan nañ gañe laaji troisième mandat mooy ñaar ñi ko gën a jege. waaw kon nag ku ñu bëgg a wax ne li ñuy wax nag xari na Macky Sall mënuñu laa gëm. dëgg la waaw jërëjëf Cheikh Bara la nga waxoon sànq fa la ñuy ki nga xamante ni kii moom la mu bëggoon lépp dafa mel ni yelwaanam dafa këpp coow la mm. nekkul gars yi di wax foofa ca diwaanu Casamance muy Abdoulaye Balde mer na lool. Mm. parce que li tax mu wer Macky Sall mi tànn Benoît Sambou. waaw Mm-hmm. loolu nag nekk na loo xam ne naqari na ko nee na nag mi ngi wax ak ay parti politique ngir ñi nit ñi njortu ne mi ngi wax ak Ousmane Sonko lay waxal ak nii ak naan noo jàngalatee Abdoulaye Balde bi nga xam ne jamono juñ ah. toll nii ah gaynde gu mer la Balde. waa xam nga élection yii moom. Mm. daa metti waaw li ko mettil mooy changement bi am ci wàllu loi bi mooy bu njëkk ba dafa yomboon ci. njiitu parti yi mooy dangay ñëw defar benn coalition bu mag mooy jël sa sa benn liste boo xam ne mhm. képp kuy bëgg da ko ciy dugal kenn ku ne nga wéet ak moom ci roq ne ko buñ gañee yow ma wax gaa yi ñu wateel la mhm. léegi suñ xasee ba gañe yow moom am atteindre na nga sa objectif mooy gañe nga gañe nga yow léegi na nga leen ñu mbëkkante ci seen biir ku mën a jël jël mhm. mais tey dañoo dindi loolu nga xam ne bu ñu investir mm, euh, euh, bonne voie rek maam Ablaye Balde moom xam na ne génn na ci carte gi amatul lu mu ci yaakaar loolu moo tax mu jafe mu jafe list yi yéex ak génn bari na coow ne kur léegi nag maanaam euh, Ablaye Balde moom maanaam ñaari mbir rek moo nekk. mooy bu jëkk bi mooy Macky Sall ànd naa ak moom ñu dem élection deux mille dix neuf yii ci présidentielle Sonko làpp leen làpp yoo xam ne Macky Sall moom xam naa ne xel mi dalaatut ci jël Ablaye Balde rek yóbbu waat fa. Hmm. loolu benn affaire la. benn la bi ci des mooy est-ce que tamit du ku ñu yónni. kan du ku ñu yónni Balde Ablaye Balde. Ah, mooy demal bon waa na dem ànd ak waa APR. waaw Sonko ma nga ak opposition bi. Mhm. demal nga mer opposé wu séddoo moom opposant yi. Hmm? loolu mën naa nekk. Hmm. bu fekkente ne Ablaye Balde nekkul ci deal moom. waaw dina ànd ak sonk bu nekkul mais li ma gën a jàpp. Hmm. mooy li muy def nii calcul la. parce que Ablaye Ablaye Balde. bul fàtte ne àndut ak Macky ci gratuite. Ablaye Balde ma dafa ñëw def lu garaaw. mooy battre Robert Sagna. waaw nekkoon ak guy gu mag mu daaneel ko. loolu nekkoon lu ko may succès ci élection. mu waroon jéem a rampe dem am lu mu bëgg ji mais mu dem yekkal ko Macky Sall yekkal kooku nag du woon gratuite parce que makki da ko menacé woon. Mhm, téye ko fu dëgër. waaw menaces yooyu nag ba léegi gëm naa ne. Mhm. Ablaye Balde mu ngi ci biir. mu ngi ci menace voilà. Mhm. léegi nag bu dee ku mel ne man loolu laa gëm. waaw bu dee ko mel ne Ousmane Sonko. waaw bu Ablaye Balde ñëwee di ko tàllal loxo. am na lu ciy xajam mooy ab Ousmane Sonko dafa yàgg xas bilan Ablaye Balde. kooku benn problème la kon nu ngeen di àndee. mais bu dara desul lu dul nañ ko bàyyi ak nañ ko jàpp. Mhm. Balde bu ñëwee tàllala loxo. Mhm. am na loo xam ne calcul la ci Sénégal te jàpp naa ne sax moo tax ñu teg bon waa. waaw mooy Sonko joolaa la bon waa joolaa la Ablaye Balde pël la. waaw te ku ne xam ne ne xëy na comme affaire ethnie duñ ko tudd nag mais dañ koy calculer waale. Mhm. nañ jël joolaa comme moom teg ko. xëy na dana am lu mën a wàññi Sonko ndax dana ñoo bokki mbokk. waaw Ablaye bu dee pël bu ñëwee bu àndeek Sonko Sonko bu amee joolaay daal di pare amaat pël ya. ndax kon ab lay Balde. loolu mën naa nekk calcul boo xam ne dina ko am bi ci des mooy Ablaye Baldé daa doy sëkk ab opposant hmm. voilà nga jël ko tax ko sa wet ngir mu bañ laa opposé wu moo gën nga sànni ko mu lay opposé voilà loolu mën naa tax Sonko ànd ak moom hmm. bu dee ko mel ne bon bon waa nag benn mérite rek la am mook saane mooy ay joolaa képp loolu tax Macky Sall teg leen hmm. bi ci des mooy Doudou Ka waxoon naa fii ma ne la dañ koo saraxe mooy dañ koo dugal ci guerre mu guerre ñu teg ci tuuti gaaw jël wu jëm teg benn su ma la falee dañ naan ah yow kat damaa faral ab xeexkat. Mhm. man maa la doon xeexloo kon garaawul. léegi daal di bon Benoît teg ko Benoît Samb boo ko tegee bu Doudou Ka meree xundo. Mhm. ñu ne ko yow da doon xeex bari ki démb kaañ enquête. dañ ko dañ ko dañ ko jàpp dañ ko kepp voilà moo tax homme politique buy enquête waaw ah, fi fi a ngaan bu buy ngaan ñu ko nañ enquête bu ngaangee gars yi moo tax man waxoon naa ko ne kon lay saraxe donc <laughs> kuñ fi waxati kaay xeex lànkal lu la sam njàng mayut ak say compétence futti ku di xeex ma yeewu ko <laughs> mais gis nga mi ngi nii xeex bi mu xeex ak Sonko moo ko xañ lépp te gars yi bi ñu koy xeexloo mhm. ça veut dire que sarxe ko doonga lañ ci jubluwoon macha allah léegi nag euh, bu temps bi jeexul ay local il ñu dem ci local yi dafa neex ñaata minute laa dese non parce que bëggoon naa ñëw ci 4 minutes nga dese bëggoon naa ñëw ci candidature Barthélémy waaw candidature ak candidature waaw waa APR waaw APR waaw nañ xam ne ñu tegee Amadou Ba. Mhm. maanaam gis nga Moussa Sy ni mu sarxee boppam moom tamit. Moussa Sy waaw xoolal niveau bi mu amoon ci politique Macky jël ko waaye del ko sànni. wallaay wallaay boole ko mbalit mi sànni pour <laughs> fële. xoola xoola kii. nu mu tuddati gis nga Amadou Ba. ak Diouf saar mhm. Amadou Ba jàpp naa ne comme jël nañ ko def ko coordonnateur. kuñ nar a def kilifa kenn du la yirifloo kenn. Mhm. wane na ne da koy teg. waaw comme def nañ ko ne ko kaay organiser gars yi rek bu paree moom liñ ko ci teg xam nañ ko. mais Amadou Ba. Mhm. ku ne xam na ne boo ko jëlee nga teg ko. su bu nekkee meeru dakaar ba lu ba toog. Mhm. lu muy bëgg. waaw lu mu bëgg. aussi boo amee problème ci troisième mandat bu génnee bu la attaqué day sarme sénégalais dañ koy dem toppi nag kii nitu dëgg la. Mhm. Barthélémy. waaw su nekkee maire. ba toog ba toog. lan la ko xalifa ëppalee ci politique. ba muy topp ci moom est-ce que loolu mooy tax mu rëcc xalifa. Barthélémy bu toogee ba toog jékki-jékki léegi bu amee maire dakaar lan lay bëggaat. waaw bu fekkee day bëgg réew mi. Hmm. est-ce que du gêner Sonko. Hmm. parce que Barth Barth non mairie Dakar ci jëmi boppam rek. waaw dafa jege président parce que tey lu mel ne 4 avril. bu amee loo yoon dafa wax ne da ngay invité maire Dakar mu toog dend ak président bi. Hmm. ndax mooy premier ministre magistrat de ville Dakar. waaw lu mel ne jeux olympiques yi di am 2022 mairie Dakar da cee am pàcc bu muy def. et puis budget maire Dakar 50 milliards quelque la. am am am am am am riir. waaw su Barth amee loolu su fippoo di laaj. est-ce que Bart ak Sonko nuroo wuñ xadar nuroo ay nit. est que amul seen bu mu ko mën a tegal. loolu yëpp euh, lu ñu war a xool la bi ci des nag mooy local yi. Mhm. waa kër Sonko yi ñoo ci gën a nekk victime. ah voilà parce que ñoom. Mhm. Euh, gaa ñooy parti bi ëpp doole ci opposition bi. waaw te ñoo may doole yeewi askan wi tey moo gisee euh, Mahamour Saleh sax song na yeewi askan wi parce que Sonko moo fa nekk. waaw yaa ngi dégg. Mhm. mais nag Sonko taxul mu am doole ci ay local de. parce que Sonko ñaareel ñi muy àndal. Hmm. xam nga local. waaw maanaam bu ñu lay investir. parti bi lay investir. Hmm. sa jëmm lay natt ba jàpp ne am attan nga ko mu jox la ko. waaw koñ bi lay koñ bi lay bi lay fal. xoolu ñu ne da ngaa gaañoon ak danga ak yaay yaa jiite ndombal tànk sàngam de. ñoom dañuy xool lan nga leen apporteel hmm. ñu doog laa wateel. léegi nag bu dee ku mel ne Sonko ab cadre lay doon boo xam ne moom liggéey wàcc. dox ci dëgg. dugg këram ànd ak soxnaam yenn tappale yëpp du ci nekk. Mhm. kooku pour mu pour mu mën a def yenn njuuj njaaj yi rek ci biir ci biir yëf yi bañ bañ teg ko place am mhm. du yomb aussi nekk ci koñ bi man a mën a sarme waa ko bi ci yeñ bëgg waaw topp ngénte yeeg dëj taasu yi bu jaree fecc nga fecc bu jaree lëmbal nga lëmbal loolu mënuñu ko ñoom moo tax Ousmane Sonko mën naa voilà Ousmane Sonko mën naa ay lool ci ay présidentielle waaw ñëw ci ay local faible parce que ay nitam duñ ay d'origine politicien te local nag moom local la tudd da ngay yaag waa local bee nawetaan voilà yoonu Sonko nekku ci mm. yoonu El Malick nekku ci yaag local bee local la voilà loolu dëgg la macha allah Cheikh Bara Ndiaye borom def gis temps bi daal dinay jeex takk parce que fi mu toll nii une minute kon la dese euh, bi ma ma résumé ci lu lu gàtt euh, lu jëm ci wàllu estomac war a waaw léegi avant loolu dinaa wax euh, affaire u rab bi Euh, vingt personnes. waaw la ñuy jël parce que tamit daa metti bii passé dama doon jéem a dem vingt cinq vingt huit mais daanaka gis nga Omar Gueye mii xam na ci dara toog naa fa ba went ba ba nangami heure mm-hmm. loolu am na léegi nag vingt personnes képp la ñuy jël boo ñëwee boo wootee bu fekkee lundi bii daa fees lundi ba ca topp ñu réserver la ko mm-hmm. nga nga dem ci mm-hmm. voilà loolu moom laay wax. léegi vingt personnes bu euh, nekk day am benn rab la ñuy àndal wala ñaari rab. non loolu moom suma affaire bopp la en tout cas daal moom. bëgg naa ci parce que man man man yàgg na maa faj rab. waaw maanaam bi ko tàmbalee léegi gis naa ci expérience yu bëree bëri yoo xam ne gis nga xale jigéen yi di am ay seize ans dix-sept ans dix-huit ans. Mhm. daanaka seen feebar yëpp rab la. Hmm. voilà bu ma amee vingt personnes daanaka lu ci ëpp douze yëpp ñoom lay doon. Hmm. te surtout jigéen ñi ñoom ñëpp dañuy am ay affaire ñii dañuy kannasu di waxtu ñii dañuy dëgër bopp ñii di am feebari bopp yu met yooyu noonu lay demee rab la voilà mm. léegi si <laughs> ay boo ngi reede mm. léegi nag bu ko defee waaw bu dee ci estomac nag laa bëggoon a ñëw estomac mooy estomac mooy fii di tàng ci biir wala digg ginnaaw gi di tàng ngay géex trente secondes ngay géex bopp bi di faral di metti lu bari. dafa ni rab yi dañ laa day dem bay jàpp yii wala muy tàng sa suufu tànk yi <laughs> dégg nga. wala muy nga nga mel ne fii dafa am lu fiy dox. waaw bii di ñëw loolu mooy estomac. waaw bii di ñëw souvent dana ànd ak ballonnement yi yooyu yëpp dana tax ba estomac yomb wala ngay. rekk dara di ko géexaat wala sa fi mel na day tàng jër. Mm-hmm. dégg nga wala digg ginnaaw gi nii. léegi loolu bii di ñëw nag. wax naa ko. il faut nga jox ko bii di ñëw. local yee lekk affaire bi bii di ñëw. dinaa joxe dinaa joxe bii di ñëw dinaa joxe li koy faj. pour mu leer bu dee nag ku koy fajo tamit boo wootee dinañ la ko faj. incha waaw eh, léegi nag eh, adresse bi. waaw chaque jour ñu ngi eh, école Madieye sàll ci asalem 2. ginnaaw école Madieye Sall. vendredi ak lundi rek lañ fa dul nekk lundi jour bi ñuy faj affaire rab la. vendredi comme suba ñi ngi cité sëñ Mansour ci terminus 48 bi ci Tëngéej foofu la ñuy faje ajjuma ji jot fa la ñuy yendu ajjuma ji moom Rabat cité ak hémorroïde ak sangu toog lépp général rek loo bëgg dangay ñëw mais bu dee lundi nag kuy faju rab rek te da ngay woote avant tous maladies mooy vendredi waaw les maladies vendredi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf numéro téléphone bi ñu fàttali leen ko di 77 610 81 81 77 610 81 81 nga jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis sa aajo daal di faju ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala mhm. ah, sukkay mbaay ajaratu na ma waxoon euh, jërëjëf euh, euh, jërëjëf El Hadj Sanjogu jërëjëf